dina ko tegat ci kanam ma bay leen ngeen deglu nak ma dambal jaañ momit ma dambal momit li xew ma dambal momit lu mu jox ma jambal jaañ mam Cheikh Macky Sall dafa defaat un an jar nako jar nako pour ñu xam kan mo kan mo gagné réellement élection yi parce que ki wara gouverner dafa wara nek ko xam dafa gagné réellement les élections là de lépp jaar ci yoon lepp jaar ci yoon mais un tricheur ne doit pas nous gouverner déjà on doit pas l'accepter on doit pas l'accepter ko bi am fi mu nekk nii ci conséquence ku nekk di wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ku nekk di ci wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ñëpp xam ni pastef képp ku bokk fa la nga jege ko waruloo waruloo bokk ci élection yi. ma jambal jaaje wax de. dama dégg même Cheikh Tidiane par terme lay wax mais dafa allié woon Ousmane Sonko. dégg li tal taal réew da nga seetlu allié gi ñu allié woon ànd taal réew mi rek war naa tax waruñu ko bolé ci élection dañ ko war a éliminer fils da nga seetlu. voilà nañ ñu bàyyi ko parce que dañu bokkul pastef dafa parti boobu pour man partagé leen ko bu yaatu tapoté partagé tapoté gars yi tapoté leen live bi ngeen partagé ko Sénégal gépp a war a xam complot bi complot bi ñoom dañuy wax ci suuf wax ji moo commencé génn ñi ngi xuloo ci seen biir bàyyi leen ñëw toog di seetaan yéen tamit jàpp leen ci wala ñu arrêté live bi bokk mais ñëw rek toog kenn ku nekk sa bopp Sénégal li matu duñ dem dañuy égoïste kenn ku nekk sa bopp ngay xalaat na ci ku nekk jàpp ngeen jàpp ci ngir yàlla yo xamni ni dek ils vont faire le tour du Sénégal raconter des bêtises et des histoires de tarare de midi à 14 heures di wax ay fan yo xamni bu ci gëna kat ay audio yu bari la am ci seen biir dama commencé jukki mais il faut ngeen japp ci live bi rek suma koy wax pour ñepp xam suma may wax suma neexone yor ko na patti tok japp sama japp mais dama koy partager ak yeen parce que loolu la massa def yeen mais yeen tamit japp leen bu leen ñew rek tok di deglu ku nekk di jarignu fexel leen ba ni ngeen ñewé ñeneen ñew parce que bu ngeen togué ma tok ku nekk tok réew mi dañ koy du te yàqu jàppaleen ci def leen ay effort bàyyi leen lépp ngeen bàyyi benn nit di def man je mënuma ñu faut que ñu ñëpp ñu jàppalante partagé leen ko live bi je mu àgg fa ñëpp ci déglu ngir yàlla ak je bi loolu wur nga sax nekk di wax parce que damay perte temps am na loo kenn ku ne yaa ko war xamal sa bopp jàppaleen ci ngir yàlla parce que je bi du xeexu benn nit xeexu mbooloo la jërë leen jëf garaaw nga ni bii lu taal lañ bëgg lu taal lañ bëgg parce que c'est une belle occasion de de de de de xam nga de parler Comme electoral c'est une bonne occasion de parler tous ces vingt candidats là ils veulent gagner dem demuñu pour gagner deux ou trois ñoo ci dem pour gagner ñi des ñëpp dañu am c'est une belle occasion pour ñoom pour ñu am pour ñu am des temps d'antenne maanaam taxaw di dara rek a wax c'est pour leur donner c'est pas pour leur gis nga ma jëmbal mënta noyyi sax mer na mer mer ba ci biir wax gi sax mi ngi fat ndax basiru jomay fay bi ricc mooy seen fitna fin tolni election ñu reporté yépp ñaari mbir motax ñu reporté ko basiru jomay fay bi ci bok ak karim wadji ni ci bokul motax ñu nañ ko jaxasse ma ma ngi wax bay xexet déglu ko aujourd'hui xalaatuñu sax gañe seen xel nekku ci même campagne électorale moo xam ne nañ dem la bouche nag tous ces bokk yi. dégg élection yi ñu si a bokk a bokk ku wër bokk. voilà. dégg na daañu tëj seen gémmiñ ñaw seen gémmiñ la ñuy def ñi ci waroon a bokk wër te wër a woon a weesu juróom juróom-benn nit ñoom duñ ci bokk kenn du ci bokk ma jàmbal jaañ lu ci yoonam ci ay élection waaw lan mooy ma jàmbal mooy liggéeyam ci réew mi ma jambal moom mooy conseil constitutionnel ma jambal moom lan moo yoonam ci justice ma jambal lan moo yoonam ci ku war a bokk ku war a bokk mais Sénégal gii mais mais lii ba kañ ma jambal bii moo doon wax ak porte parole Mountakha Mbacké Bassirou Mbacké toog ci télé bi naan maag Bassirou Mbacké waxante ñu lii 2019 bi Ousmane Sonko génnee Bassirou Mbacké woo ko bas porte parole doomu doomu sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre sëñ Abdou Khadre Mbacké xalif juma imaamu Touba yàlla na ko yàlla yërëm doomam ji mu jur di Bassirou Mbacké porte parole mooy dil ak Madiambal Diagne Madiambal na ko Ousmane Sonko mi doole ji mu am bis bu jëlee réew mi Touba dootu leen dootu leen dund ndax diine ji ngeen yore Ousmane Sonko bugg ko Madiambal moom moo doon sende Madiambal bi wax ak Bassirou Mbacké di kàddu yor kàddu Mountakha Mbacké Madiambal Diagne mooy wax nii da ngay xool bi complot lii mooy mafia politico maraboutico affairiste bi may wax la mafia la les les borom média yi borom alal yi ñi naan ay kilifa diine lañu politiciens yi mafia bii ñoo bëgg lekk Ousmane Sonko te Ousmane dafa wex boo ko wan ne koy yàbbiwaat lii mooy problème bi xoolal ma jàmbal ñu partagé ko mu yaatu. yéen sëñ bi ñu ngi rek ko mérite dem ko suñu réew mi ngi ci yoonu wér yoonu baax ma loolu gis. maa koy assuré ba a ma ci gis ay conséquences. dégg nga lay wax de. donc Idrissa Seck bi mu lii liiree ba ba xool ba xam ba xàmmee xam nag nekk nit ko am expérience. dégg xam na ni moom du sonn ci lii parce que du dem. dégg moo ko njëkk a comprendre sax Macky Sall peut-être. Uh-huh. dama ne da ngay xool yow ñi nekk ci Sénégal def politique ñëpp a agité wu. tout le monde s'agite sauf lui ça veut dire que bokkul ak ñoom ça veut dire que ni ah. ils ne sont même pas, ils ne sont pas au même endroit. de des de droit. Il droit droit article de. dafa les articles ne ah bon ah oui Moi, ah. notre conseil constitutionnel est un conseil constitutionnel corrompu. quelle est la réalité des choses. le conseil constitutionnel est corrompu. Madiambal lay wax de Madiambal Diagne nee na ay article eh, intéressé wu ko li ko intéressé mooy conseil constitutionnel ils sont corrompus Badio Camara est corrompu eh, Mohamedou Diawara est corrompu Cheikh Tidiane Koulibaly est corrompu Cheikh Ndiaye est corrompu les sept juges du conseil constitutionnel Madjambal Diagne vous êtes des corrompus Madjambal nee na moom looloo ko ñor ku mës gis lu ko wax bari na te ndax loolu yëpp a ko di ko jàll c'est de la corruption. nee na jamaay ko ñu bëri ne euh, <laughs> comment dirais-je. waaw yéen Karim Wade li li ko éliminer c'est de la corruption mais duñ ko lijjanti. ah bon. duñ lijjanti loolu dañuy dem ci élection yoo xam ne problème am na ci ñu taxaw di ko xool. Ah. Ah. adresse Madiambal Diagne adresse Madiambal Diagne 269 Djily Mbaye numéro 269 cité Djily Mbaye Yoff cité Djily Mbaye comme élection yi comme kii def nañ ko on on on duñ dàq examen Il y a trop de tricheries dans ce, dans ce processus électoral-là. De beaucoup tricheries. Il y a trop de tricheries et de mensonges. gis nga parrainage bi suñ ko jaaxle woon diwoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg euh, peut-être 5 ou 6 personnes auront auraient auraient auraient la possibilité vraiment de de de de de passer dépassé parce que ni ñu tëralee parrainage bi moo nekk moo nekk moo tëralin bi moo nekk tëralin boo dégg su fekkee tricherie amu ci mënul mënoo am plus de cinq six candidats mënul nekk. dégg li ce n'est pas possible. dégg li ce n'est pas possible. pourquoi c'est pas possible dañu war a wax dañu war a on doit conseil constitutionnel boobu daf moo ñu war a wax. Hein? moo ñu war a lijjantil euh, Anta Babacar Ngom nan la def ba am parrainage. dama dégg parce que ñi nga xam ne ñaan jox ay parrainage dafa bëri ñëpp ko xam. ah bon ñëpp xam nañu. ndax waxoo ko ba nga ko xamee yow on les a donné du parrainage. ndax waxoo ko avant. ba nga ko xamal tax waxoo ko nekk lu ñu lay jox da ngay seet li parrainage la ah, ah ah. ñu kenn xeex moom mooy saa xam lépp de moom moo xam lépp seeni xool li ñu def parrainage citoyen nag waaw ah mhm. xool li wax xool li def nous si on lui donne le temps de réfléchir va dire que bon. mais il a élection ah bon Libre élection ah vraiment élection d'abord et puis ni Karim Wade parce que une double nationalité mais il ni pas double nationalité il validé mais pas après Karim lan moo juste waaw est-ce que génne gi ñu génne Ousmane Sonko ci élection lu juste la lu tax kaasoo ko da xool ji doomu raam nee na loolu c'est pas juste a ah, kañ loolu c'est juste c'est juste soo am Wardini ni mu jàllee noonu la Karim jàllee ci liste bi mais biñ jàllee première liste dafa am ñu def recours ci Karim ñu càmbar ko téye ko soo am Wardini yow Madiambal ba nga xamee ne dafa am double nationalité lu tax jëloo ci candidat yi kenn mu def ci recours yoon dafa am nu muy doxee conseil constitutionnel même boo amee double nationalité te kenn deful ci yow recours kenn du ko càmbar Karim dañoo def ci moom recours ci deuxième liste bi ñu koy soog a seppi xoola bii malhonnêteté xoola bii doy ma daam ni muy wax naan Soham Wardini dafa am double nationalité comme Karim kon bu ñu seppee Karim dañoo war a seppi Soham Wardini déedéet Karim ak Soham Wardini ñoom ñaar ñëpp ñoo jàll ci liste bu njëkk bi 21 candidats yi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci waaye dafa am période de contestation de réclamation recours ca recours ba nag ca la Thierno Alassane Sall ne Karim Wade mii mënut a bokk ndax ñaari nationalité la am indi ay këyit indi ay firnde conseil constitutionnel ànd ak moom gëm ko génne ko teg fee bu amoon beneen candidat bu def recours ci Soham Wardini ca booba jamono temps recours bi indi ay firnde yuy wane ne kii ñaan nationalité am dañuy génn soo am wadini teg fee parce que soo am wadini du problème soo am wadini du du favori soo am wadini c'est pas un problème soo am wadini ñoom ñoo ko ci dugal pour prétexte pour man koo layoo lii ñuy wax nii moo taxoon ñu dugal ko ci ngir bëgg am fu ñu jafandu ngir pousse élection yi ndax pare wuñu seen candidat mën ta gagné muy Amadou Ba moo tax ñuy xëxtër xëtëri nii di wax di noyyi seen fit yi dem seen tuba yaa ngi fees dell ak i gaanuwaay ndax jaaxle xam nañ ne ñàkk nañu réew mi parce que alalu jàmbur yu ñu yël suuf suñu sàcc milliards yi ñu sàcc alalu réew mi xam nañ leen ni xaar mooy dugg ci kaso daa iman ak seenu njaboot moo tax ñuy pëyi pëyi ak xëy xëtër xëtër yi di wax ba mënatuñoo nooyi ñoom ma jambal ak doome daan ñi déglu leen ko. toujours combattre le PDS et toujours combattre tout euh, euh, les pratiques du PDS mais nan yoo xam ne nii dafa am ñaari candidat kenn ki dañ ko jàpp. dafa tiit dafa tiit kenn ki ñu moom double nationalité ñoom ñaar ñu jàppale ci double li nga a wax du loolu li nga waroon a wax ñoom mooy ñoom ñaar dañoo am double nationalité ba ñu jàppee Rose Wardini yóbbu ko kaso def ko garde à vue bàyyi ko mu nekk sous contrôle judiciaire li nga waroon a wax mooy Karim Wade dañ ko waroon a moom it woo def ko mandat d'arrêt international jëli ko dawaa indi ko àtte ko def ko ci kaso bi wala ñu def ko liberté provisoire loolu nga waroon a wax te waxoo loolu comme da nga ñoom ñaar ñoo yem te da ngay fen bu ñu yemoon kon ni ñu def soo am Wardini mooy yóbbu ko dig daal di koy def mandat de dépôt may ko liberté provisoire te loolu lépp dara du ci yoon moo lay xamul ne film la ay tappale la lu tax defuñu ko Karim Wade bu fekkee ñoom ñaar ñëpp dañoo am double nationalité pourquoi ñu bàyyi Karim Wade muy nongi-nongi ñuy ànd ak moom ak député lu tax Karim Wade defuñu ko mandat d'arrêt international ci double nationalité bi mu présenté en tant que faux lu tax lu tax Madiambal waxoo loolu doomeraam ji nga doon. loolu fan la war a tegu fan a tegu ci loolu yooyu élection amul ak li tax ñu tas partem ak fi mu jaar quel que soit alpha amul benn réew moo xam ne ni dinañ accepter jomaay fay yaa may comprendre bokk ci élection mënul nekk et que déclaration sur l'honneur bi mu def bi jomaay fay def déclaration sur l'honneur bi jomaay fay dafa tiit de fess del ak way xasso kun dafa tiit te conseil xam ko conseil constitutionnel xam na ni jaarul ci administration pénitentiaire et puis mu jëm waaw léegi Bassirou Diomaye nee na dafa nekk détention amul lettre bu war a génn foofu yi këyit yi mu suñu joxe ko loolu la ñuy wax waaw Karim Wade moom fu mu nekk moom Karim Wade moom anamu moom Karim Wade fu mu nekk Karim ci kaso la nekkoon fii no ñu génn ko yóbbu ko Doba Dowa mu nekk fa ci kaso moo tax mënatul a ñëw Sénégal waaw léegi Bassirou Diomaye Faye su ma nee déposé ay dossier ma jàmbal di ko kaas ne warut déposé parce que ci kaso la Karim moom fu mu nekk Karim ci kaso moom kadi dañu tuxal kasso bi yobbu ko dawaare ci kasso la nek muñ to tek tankam senegal karim wade ci kasso la nek wa bu karim mën joxe ay këyit mom nek ci kasso jamaay muñu ko mom ma jambal mi est ce que ak kan mo nako ko jamaay li mu signé ci bim ci bi kasso bi lako ko signé gis nañ fi ay vidéo Ousmane Sonko yo xam avant muy dugg ci bi kasso bi lako def kon moko ko ne ma jambal ne ko jamaay fay préparer wul ay dossier yépp lata muy dugg ci kasso bi kan moo wax lolu lan moy firndeel ne li mu jamaay signé ñu duggal ko jox ko ba candidature am baax ci bi kasso bi lako signé lan moy preuve ay vidéo Ousmane Sonko génn nañ fi toppuñu ko parce que vidéo yi daf ko pré-enregistré préparé ko lan moo wóor ma jàmbal ne ko Diomaye Faye préparé wul dossier de candidature am ca jamono ba ñuy def jamono ba ñuy def vidéo Ousmane Sonko yi nga xam ne Diomaye ak Ousmane xëy na liggéey nañ ci waxtaan nañ ci préparé seen dossier xam na ñoom ci kaso bi la mujj moo tax ñu jiital seen lépp seen i signature yi seen lépp préparé seen lépp tëj ci coffre fort ba bu jamono bi ñëwee ñu génne benn benn lan moo wóor ma jàmbal ne ko lii defuñu ko li jiitu ñu dugg ci kaso bi ba muy taxaw naan jamaay fu mu jaar rek fu mu bind ak pénitencier ki ma jàmbal tubay jaa dell ak ay puub fi mu toll ndax waaye billaahi ci kaso bi ngay dee doo mucc. ñu tapoté ñu la ñu tapoté. Ah, mu yëg nan la loolu nekkoon notre forfaiture boo xam ne nii dama bëgg ñeen ñi naan nañ dem élection ngeen indi ci ay réponses parce que il y a il y a deux fois quatre-vingt-dix mesures. ah bon il y a mille mille mille pas et mille mesures. day nga dee de tiit na de mille pas mille mesures sa waay tiit na. ñuy peese si biir ba balance lañ lay teg tey bi lay tey nga tey. mais loolu dañuy reetaan sax dañuy yëpp. dégg nga dañuy yëpp. Macky Sall balaa bëgg a dee ñu naan dafa bëgg def troisième mandat Macky Sall su fekkee ñun ñu sérieux lañ ñu. partagé tapé su fekkee nous sommes sérieux war nangu ni ba mu ne def troisième mandat tegul tegul ben acte bi wan fa def troisième mandat wala wax ko. ah bon. wala wax ko ko xam ko noonu ku ci génn ku ci am preuve na ngeen amee potu ndox ngeen may ko mu naan giriñ jaa fuur fi mu toll nii dafa tiit. du ko def du ko def ngeen bëgg ni koy def fu ngeen man man je ne comprends pas. ah bon tu comprends pas. tu vas comprendre def Idriss def troisième mandat ngeen war ko comprendre ngeen war ko troisième mandat mënul nekk. mais ah. conditions yi dem ci élection c' est bête. et puis ce ne serait pas des élections démocratiques. buñ ñu <laughs> fal doo président. ah bon. parce que yaa ma dégg. <laughs> waaw ligne de départ bi ñëpp nekkuñu sur la même ligne de départ. ay waay ndaw Samba ñëpp nekkuñu sur la même ligne de départ. ay waay ndaw Samba c' est ça la vérité des choses. ah bon. billahi di nga xam ne lépp dëgg la. Madiambal Diagne dégg ngeen ko de bii mooy bosu Madiambal côté Amadou Ba ak Macky Sall. benen bima len tegal sank moy wara sar côté PDS dil bi mafia baa ngi noonu ñoom ñaar ñepp dañoo am intérêt ci élection baña am parce que Madiambal xam na bu makki démé ci élection da koy ñak donc bu mu dem PDS bu Karim wad demul dé nañu parti bi day tas Karim da fa wara dem ñom ñaar ñi nak ñoo tek seen dil lay ay lay crise institutionnelle à l'assemblée dé fenn fenn seen i fenn bin def ay loi yu lu yoon tas réew mi Sénégal juk ñepp ma son do na li du fi am ak càcc la coup d'état la nit ñi di xex ñuy rey di door ay bal di rey ay gone lii mbokk yi ñii ñooy criminels yi ils seront jugés ils seront condamnés à perpétuité ñii dañ leen tëj seen ngir dund Madiambal ak Woré Sarr ki ablaye Wade ki Macky Sall ki ñoom ñëpp Sidiki kabaak ak ñoom ñëpp daañu leen tëj seen ngir dund benn par benn ñoom ñëpp dinaa leen jox seen numéro yi nga xam ne ngeen jël ko enregistré ko ñoom ñëpp seen numéro yi ngeen tas jël leen seen téléphone yi seen big yi ngeen enregistré numéro yi ma leen waaj a jox ñoom mafia bi ñoom ñëpp ngeen jël seen numéro yi xam li xew ñu leen di traqué jox nañ leen suñu hackers yi pour ñu hacké seen numéro yi dugg seen téléphone yi ñoom ñëpp benn par benn incha allah rabbi kenn du ci mucc ci ñoom Pape Samba Diop bi nga xam ne mooy protocole Macky Sall Pape Samba Diop nga xam ne caga lay wër mu yor ci ay immeuble Dakar mënu ko am 150 francs mënu ko wona am en 2008 2009 2010 Pape Samba Diop légui milliardaire la ca protocole Macky Sall ba ñoo ray Bruno Diatta ñoo dàq ñëpp téye protocole bi te xamul li protocole amul sax BFM Pape Samba Diop mo yor protocole Macky Sall ciagay Macky Sall yëpp moko ko géré Pape Samba Diop bobu ci protocole Macky Sall bi la bok numéro téléphone am 221 76 639 17 20 jël leen ko ngeen yónnul ko ay bagage jël leen téléphone bi ngeen defal ko ay bagage Pape Samba Diop bu protocole Macky Sall waaw Blaise Diagne la nekkoon amu fa sax BFM tey milliardaire la ay immeuble lépp ak tëddee càgga la mooy liggéeyam Pape Samba Diop WhatsApp am 70 221 76 639 17 20 60 221 76 Pape Samba Diop 221 76 639 17 20 Pape Samba Diop bu bu Pape Samba Diop jàllee nga jël ci nga xam ne mooy Sidiki Kaba ministre de l' intérieur bii rayaate chef de police ministre de l' intérieur Sidiki Kaba jël leen téléphone am ngeen defal ko ay bagages Sidiki Kaba ci Kaba ministre de l' intérieur Pape Samba Diop Pape Samba am na kuy dugal numéro ba numéro lay dugal non waxuma 17 20 de wala attends waa moom la waaw 17 20 la mu ngoog effectivement kooku numéro whatsapp Pape Samba Diop bi yor protocole Macky Sall bi koy joxal bi koy arrangé caga yi di ko luyal oto yi di ko luyal dégg nga man suite yi mu fay dugal caga Macky Sall yi bu Macky tukki caga yi Pape Samba Diop bi moo koy moo yor protocole caga euh, sew sewaan yi yu bon yi Macky nëbbi mareem Pape bii moo ko géré moom loolu mooy liggéeyam ci Macky Sall caga yëpp moo ko géré ay immeuble milliardaire la te yorul 10 francs Mali ba ñu kaw loo xam yooyu mu yore Pape Samba Pape Samba Diop bu weesoo ngeen jël Sidiki Kaba ministre de l'intérieur bi yore policier yi di leen yónni ñuy tëjee ko rey ñoo rey waa Ziguinchor rey uni rey étudiant bi université bi ñoom ñi rey Sidiki Kaba ministre jël leen ko ngeen yónnee ko ay cocktail molotov ak i café Touba. numéro téléphone am 70 221 WhatsApp am 221 77 740 76 78 66 maa ngi ko répété 221 77. 740, 78, 66. Répétez une troisième fois. Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur. bi chef de police, di leen jox fetal ak naan rey leen dóor ay bal téléphone am mi ngi nii géolocaliser ko ko ko ko defal ministre de l'intérieur Sidiki Kaba 221 77 740 78 66 ministre de l'intérieur Sidi Kikaba. Sidiki Kaba. ngeen jël numéro bi nga xam ne mooy numéro Mamadou Talla Cuks ministre ministre Mamadou Talla Cuks kooku tamit moom moo may Marème Faye Sall Macky Sall ministre la mi ngi ci biir gouvernement bi Macky jël na ko mu nekk ci biir milliardaire la léegi sàcc mant la jolie la léegi ma nga Sénégal Macky def ko ministre Cuks ku jege Macky Sall la ci mafia bi la bokk Mamadou Talla mook famille Talla boobu ñoom Malal Talla ñoom euh, ki directeur général RTS bi c'est la même famille ce sont les Talla les Halpulaar la nekk la Jolie ki fune ne ñoo téye réew mi ñooy RTS ñoy c'est la même famille la famille des Halpulaar la les ko Bandum la jël Macky Sall en otage ñu téye Sénégal di def lu leen neex di buum ko bummi mom moom ci la bok ci mafia bi Mamadou Tala moo may Marème Faye Sall bi moko may Macky Sall ndax moko don jangal jàngal euh, Diourbel nekkoon élève am waaye Marème moom bopp bi mos neex suuf bobu da ko don doxaan ba yag mu jël ko jox ko Macky bobu Macky kenn bëgg ko mu kenn bëggul lañ ko tuddé Mamadou Tala bobu ministre bobu cuks téléphone am mooy 221 cent 740 53 62 Mamadou Talla Tiox ministre 221 77 740 53 62 mooy téléphone am loolu mooy ñi ci des solo am na ay am na ñeneen mais ñeneen ñi booy xool Benoît Sambou bon écoute Benoît Sambou il est de moom tamit waroon na mën a réagir en tant que doomu Ziguinchor en tant que Joola mais déedéet mi ngi ne pat ñu rey ay waa Ziguinchor mu ne pat Benoît Sambou ministre d'État Benoît Sambou def na ko mu nekkoon délégué xaw ma ci ban am na benn euh, kii bu ko Macky jox Benoît Sambou waa Ziguinchor xam ngeen ko Thiès la dëkk la dëkk la juddoo sax waaye léegi comme dafa bëgg base mu dem Ziguinchor na Ziguinchor la Benoît Sambou mais du wax mi ngi ne pat jël leen Benoît Sambou aussi Benoît Sambou 221 77 859 41, 30. Benoît Samb. 77 859 41 30 Ni, ñooy saay-saay yi nga xam ne ñoo nekk tey ci bopp nguur gi ah di wut caga caga lu am nok, lu am lu am yóbbu ko ci yi lu am yóbbu ko ci yi lu am yóbbu ko ci yi fi mu toll nii lii mooy coow li lii la ñëpp di wax fi mu toll nii lii la ñëpp di wax fi mu toll nii lii mooy li nga xam ne mooy problème bi am ci réew mi complot nañ voté seeni loi def li ñuy def ba noppi nag léegi loolu nag moo feeñ léegi coow lee am coow li léegi coow li coow li nag moo am fi mu toll nii léegi nag dil bi kalaate na ndax ñi ngi wax ndax boo defee ba noppi coow li bari il faut nga lay lay boobu ñuy lay nag léegi moo indi jafe-jafe yii nag léegi ma Madiambal Diagne déglu ngeen ko waaye li ci gën a garaaw li ci gën a garaaw mooy mooy mooy dégluwaat leen bu baax a baax député PDS Woré Sarr bi maanaam waxam ji lépp da cee feeñ man audio bi ci doyal li mu wax ni dafa feeñal dil bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp moo tax du ma ko doyal il ma tegaat ko ngeen déglu ko bu baax a baax enregistré ko tasaare ko tapoté live bi ba ñëpp déglu ko Woré Sarr waxam dafa feeñal dafa claté dil bi yëpp yëpp yëpp daanaka amatul lay wax ju garaaw la wax audio aduna bi picc ñepp ko wara deglu ñu deglu wara sa député PDS ba nekkon ci assemblée ba ñuy voter loi bi tal réew mi tay mu wax lan motax ñom ñu def ko sabab bi ci am ak njuuj njaaj geeg xaalis bi ci am ak lay ablay wad da Karim ak lepp la deglu wat leen ko mbokk yi oje bi donc dafa doy ab live wala ñu koy yok dara ñepp trapoté mu mu jog waaw affaire bi daf may jaaxal ndax lutax mu di ma jaaxal yaakaar naa ne bu ñu defee analyse pertinente ñi nga xam ne depuis. su à nos muy fukki at ak ñaar ci ren ñu ngi topp ci parti bi di kàngare lenn lu nekk ñu digg leen ko ñu bañ lenn lu nekk ñu wan leen ko ci xeetu teraanga ñu bañ amuñu woon benn bis lu le vingt cinq février deux mille vingt deux mille vingt quatre ñu yaakaar ñu tas suñu yaakaar ci loo xam ne teggul ci dëgg tegul ci yoon ne Karim Wade du bokk ñun ñu taxaw jaayanteeg yàlla ngir seen jëmm xuloon ngir seen jëmm nga xam ne keroog assemblée nationale mënoon nañoo gaañu wala ñu bañ génne waale bakkan yàlla mi suturaal jaam nag moonu suturaal ba nu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ak seeni ñaan ñu ne nag parti bi bu demul élection deux deux mille vingt quatre vingt cinq février deux mille vingt quatre su parti bi bokkul bu PDS bokkul Karim Wade bokkul mais ñu parti bi tas sax déjà am na ñoo xam ne bi affaire bi amee rek commencé nañ di campagne pour ay candidats jot nañ audio yi. kon nga xam ne ñooñu ak ñu mel ne ñoom xalaatuñ fi woon a toog dañuy dem tey nag day daan day doon dëgg nag ndax dafa metti fukki at ak ñaar nga toog di xeex benn mbir ba mbir mi ñëw bañ ne jàpp nga ba nga ne téye nga ci sab loxo ñu la mbir mi nga téye ci sa loxo foqar ci nañ ko bokkatoo nga bëgg fee toogaay yeneen fukki at nag ndax président bu fi falu fekk fukki at doo joxe sa pouvoir da nga ciy taxaw waa nga muy ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne yii yaa ngi ci coono yaa ngi ci fitna yaa ngi ci ñàkk yaa ngi ci coono yaa ngi ci bëgg Ablaye Wade nga nga toog ko nag ba ba ñuy defatee élection xam nga deux mille lan wax dëgg yàlla loolu tamit dafay metti deux mille deux mille trente nangam day metti ñu ne li ñu war a def mooy nañ def enquête commission d' enquête parlementaire ndax fekk na booba am na yu fi génn yu nu yëpp te audio yi mu ci am lu muy leeral bi ci gën a fës rek. Karim Wade ministre de l' intérieur bu Paris ak premier ministre bu Paris ñoo def décret ne Karim Wade dootul sénégalais dootul dootul dootul français sénégalais la ñu ne il faut que mu am six mois waaw bu ñu defoon moom te bi ñuy war a def exam euh, élection yi moom ci 4 mois la toog ndax octobre la ko dépose octobre novembre décembre janvier 4 mois te nee nañ obligatoirement 6 mois la war a doon waaw kon ñun bu ñu pertee bañ a bokk kon ñun fan la ñu jëm fan la ñu jëm. il faut que parti bi ñu def ci ay pexe pour ñu reporter élection yi suñu reporter élection yi ba paré taxaw leen fofu nee wa ñun wa PDS Karim Wade bokkul ci élection yi ba ñu ñàkk élection yi fan lañu jëm ñaar fukki ata ñaar yu nekk ci mbedd mi demu ñu ci pouvoir bu ñu ñàkk élection yi fan lañu jëm lolu moy laaj bi mu laaj bu ñu bokkul fan lañu jëm waye lam ca teg moy il faut que ñu def ci ay pexe def ci ay pexe ba mëna bok kon seen ñak baña bok ci élection yi. la koy saafara mooy ut ay pexe pexe yi nag mooy li ñu def loi bi ñu voté nii pour ñoom loolu mooy pexe bi lëkkaloo gi ñu lëkkaloog Macky Sall ngir taal Sénégal mooy pexe boo xam ne mooy tax Karim Wade mën a bokkaat ku mas a dégg lu mel nii ci àdduna. balaa boobu mars au plus tard dina retrouver dana nekk dans la légalité kenn dootu wax ne six mois yi matul te bu boobaa nag gannaaw am na costion am na parrainage yu député am na am na nationalité sénégalaise am ku ko mën a tee bokk ci élection yi. li ci des nag ñu teg ko ci loxo yàlla nag ñaan yàlla may nu ci ndam affaire gi ñuy wax nun buñ doon jaay suñu bopp duñ yegg si fii ñi bëggoon a jaay seen bopp ñi bëggoon a dem dem nañ bu yàgg te dara empêché wuñu woon yéen ñooñu ngeen dem waxuma ak ñun kenn ku nekk bu la neexoon dem sa ngor moo la fi ba léegi ñoom am nañ seen problème ndax ni ma jàngi seen waxtaan ak ni ma dégg seen wax te wax nañ ko ñëpp di ko dégg wax nañ ko commission wax nañ ko plénière nee na ñoom que Macky moo leen booleeg Amadou Ba Amadou Ba mooy seen candidat Ba bu demee élection ku mënti jàkkaar lool bëgg bëri bañ bëri dañ koy day day Amadou Ba day gagné waaye nag comme que taqal nañ ko ndax ñun ñoo taqal Amadou Ba mu ngi suñu raab. ngeen de. nee na ñun mooy ñan mooy waa PDS ñoom ñi def commission d'enquête parlementaire bi nee na ñoom waa PDS ñoo taqal candidat wu Macky Sall Macky Sall ànd ak ñi taqal candidat am ne leen naa leen jox suma ay député ngir ñu mën a matal lim bi ñu soxla ngir taxawal commission d' enquête parlementaire ngir lan ngir ngeen dal ci sama kaw candidat bi nga xam ne man maa ko tànn woo ay député ne leen ànd leen ak ñi nga xam ne ñoo sama candidat Amadou Ba ngeen ànd ak ñoom dooleel leen pour que ñu mën a dal ci sama kaw candidat Amadou Ba lii moo am de ñu ne nag lii mooy crise institutionnelle entre assemblée ak conseil constitutionnel politik. problème bopp ñoom problème politique problème parti politique bu Macky Sall coalition bu Macky Sall ben bokk yakar ak parti politique bu PDS coalition walu seeni problème yi ñi am ci seen biir ki candidat am seppi nañ ko ké candidat am gagner ki kii munta gagner ki seppi nañ ko seen ñaari jafe-jafe yoy la ñu àndee ñoom ñaar teunk Sénégal bëgg taal Sénégal di ray doomi Sénégal yi ci seen bëgg-bëgg bopp kese kese kese kese kese munta xam mbàkke toog fee di bëtt ay bëttam di joy ku ma sa gis lu melni papori nelu fi ñi ñagaté moy ñak awale ko ci ñu ne comme que taxal dañ ko ci corruption bi tudd ay tur Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane kulbali léegi ñoom seen leader dañ koy fóot ba mu set wecc wecc wecc mu set mbaa mu taq ndaxte. waa léegi ñoom seen leader muy Amadou Ba ñu tuumaal ko mooy premier ministre ñoo dañ koy fóot ba mu set xanaa mbubb boo koy fóot dañ koy summi man de mosuma gis mbubb mu ñuy fóot ci kaw yaram am déet mbubb mu tilim bu ñu koy fóot est-ce que ci kaw col gi lañ koy fóote wala dañ koy summi suuf euh, sóob ko tontu leen mbokk yi mbubb mu tilim nga sol sa mbubb ba mu tilim nga ne koy fóot ndax ci sa kaw yaram ni nga ko solee nga koy fóot wala da nga koy summi sóob ko ci paan wala yaa xam loo koy fóote sóob ko ci pour fóot tontu leen ma waa naka ngay bëgg a fóotee sa mbubb mu tilim muy Amadou Ba nga dañ koo tuumaal dafa tilim ñu war koo fóot ba noppi futti woo ko futti gi nga ko waroon a futti baxa bi boo ko bëggee fóot danga nga koy futti ku sol sa baxa ba mu tilim bokay foot dang koy fus dang koy summi nak ci deug deug mbokk yi ko ci bagan daal di fete eh, ba mu set nga daal di def sa bëla ba mu saf weñ dadi di weñaat daal di weer baxa bi nga soga passé eh. waye mom mbub miñ na dafa tilim ñoo dañ koy foot mbub mi ñom summi wuñ ko te summi mbub mi mooy tekki ndomba tank Amadou Ba moy premier ministre bi moy candidat bi bañ ko tuumalé da nga ne waroon tekki tek tekki ndomba tankam yépp nangu candidat bi nangu poste premier ministre bi nako demal dama layé sa bop waaye tey la Macky Sall taxaw na Amadou Ba tey laa gën a am confiance ci yow yow laa gën a wóolu yaay premier ministre bi ki ñu war a fóot moom moom futteekagul yére bi mu yére bi ñu war a fóot kenn summeegu ko dañ na ko yére bi dand na tilim na waaye sol ko bu ko summi wax ñii ku ñii kan kan la ñu yab ñii ñii PDS ki Ablaye Wade ki Macky Sall ki doomeraam yii ak ay Karim Wade ñii ñii ku ñu yab ñun sénégalais ñun kañ la am fulla pare ci ñii parti démocratique sénégalais ak APR dañ ko war a tas. dañ ko war définitivement ce sont des partis criminels ay partis la yoo xam ne dañuy comploter contre l'intérêt de l'État, avec des entreprises terroristes étrangers parti APR ak PDS dañ leen a war a dissoudre définitivement ay partis la yoo xam ne waruñoo exister Sénégal ñi dañoo comploter contre l'intérêt supérieur de l'État du Sénégal c'est ay intérêt personnel moo tax ñu compromettre les institutions la stabilité et la paix du pays c'est scandaleux c'est très grave c'est extrêmement grave te amuñ droit diko accuser te teguñu ko ci preuve yu leer ndax bëgguñu ëlëk seen waajooju bis bu gagné ñu naan ko président corrupteur wala président bu tappale wala nangam nangam waa ñun lii moonu boole ñoom ñoom 83 lañ ñun 25 lañu. ñu tapoté ñu tapoté suñ 25 mënula tax ñu dàq sa élection suñ 25 mën ta tax ma Karim Wade euh, doon candidat.

ki leen si jàppale mooy borom candidat bi ñu tuumal ki tuumal candidat am ba noppi nag di xeex candidat bi ci suuf di ko nëbb ci kaw daan ko mag yow a ànd ci kaw waaye ci suuf mi ngi koy xeex ndax mi ngi lënkaloog noonu candidat bi tuumal candidat bi ñoom ñaan ñuy lënkaloog pour am doole yu leen mën a may ñu taxawal commission d' enquête buy leeral tuuma yi waaye tamit di indi leneen loo xam ne loi buy dàq élection yi la Macky Sall ci boppam moo taal Sénégal li xew ci réew mi yépp du kenn ku dul Macky Sall moo ànd ak Karim Wade ñu teg seen complot Mountakha Mbacké di leen ñaanal ak di leen bàyyee Serigne Touba lu Macky Sall bëgg bu demee Touba Mountakha ne ko dama ca xabru ba ñaan lima ma defal mënuma laa fay li ma defal rëy na bu mag bi dong la lay lu Macky Sall am man nañ ne ñaan giko ko Muntaxa di ñaanal diko bolé booleeg Touba Macky Sall di ci ñaan lolé mom la ko yalla fayé motax ñun ñëpp ñu nekk ci ay samay wax waxi Muntaxa Mbàkke la sa yu Macky démé Touba mu ne ko demal ci barabu sëñ ba ñaan bu fekkee li la Sëriñ touba di may Macky Sall li la moy li bu def ray askan wi fitnaal askan wi te Muntaxa Mbàkke nee na ko ñaan bu li ma ñaani mbokk yi nañu xolaat suñu bop xolaat suñu taxaway te te tit, nañu tit ndax makki li lay def de Muntaxa ko wax du samay wax bu ma kenn yóbbu kër yaa ma di tax waxi Muntaxa Mbàkke léegi nag lii mbokk yi yéen a ngi déglu yéen a ngi teewlu te dofu leen dégg ngeen bu baax a baax a baax a baax wax ji kenn ku ki nekk xam nga li xew ñu teewlu ko. nañ fexe rek élection yi ñu dàq ko. nañ fexe élection yi dàq ko bu ko dàqee Karim Wade bokk. bu ko nañu léegi pexe yi mooy nañu fexe rek élection ñu dàq ko. nañu fexe rek élection ñu dàq ko. nañu fexe élection ñu dàq ko ci ay pexe ndax bu élection yi amee te Karim bokk ci parti bi day tas kon parti démocratique sénégalais ak APR ñoom seen ay intérêt seen njariñ moo gën intérêt 18 million sénégalais parti démocratique sénégalais bu Abdoulaye Wade Karim parti bu Macky Sall APR seen ay intérêt pour mën a téye nguur gi moo ëpp solo dundu sénégalais yi moo ëpp solo constitution bi moo ëpp solo république bi moo ëpp solo institution yi moo ëpp solo conseil constitutionnel moo ëpp solo justice bi moo ëpp solo lépp na na réew mi yëpp tàkk na ñëpp dee na bal yi génn moo leen gënal ñoom élection di am yoo xam ne dañ koy ñàkk yi da koy ñàkk Karim Wade da koy ñàkk ndax Bassirou Diomaye fay moo ko war a gagné ndax Ousmane Sonko nga ngemb te loolu mooy dëgg parce que loolu la yàlla def ci askan wi yàlla pouvoir du doole ji nga am di doole ko tëj pouvoir mooy ki ànd ak askan wi ki askan wi def ci xolam kooku moo am doole kooku moo téye nguur gi ñoom nag loolu la ñuy bañ ñoo dañ ciy def ay pexe seeni pexe mooy bëgg-bëggu Karim bëgg-bëggu Macky moo war a gën a nekk lu ñu war a taxaw ko bëgg-bëggu askan wi ak constitution bi charte réew mi li mu wax nañ ko jalgati ngir def lu neex Macky ak lu neex Karim Wade Macky Sall ak Karim Wade lan lañ ñu ëppalee lan lañ ñu gën ci réew mi seen baay yi dañoo man lu suñu baay yi mënul seen nday yi dañoo sukk wasin lu suñu nday yi sukkul wasin la Macky Sall ak Karim Wade am xam ko lu ñu xamul ñun ci réew mi lu tax ñii ñu yab ñu ñu taxaw na yàcc na yasa di leen setaan lu tax ñii ñu yab ñu mbokk yi lu tax ñaari nit ñi bëgg tàll taal réew mi ñu ne tekk taxaw di leen xool lu tax ñun ñëpp day réer surtout yéen ñëpp muñ ngeen dee ngeen sonn ngeen damm ngeen tàyyi ngeen mais Ablaye Wade jaral na leen doomam jaral na leen. da ngay seet li Ablaye Wade doomam waaw candidat la bu demoon élection demu ko 2012 demu ko 2024 kon fan nañ jëm. fu ngeen jëm yéen a xam. ñu bëgg ci. di xaar suñu yoon nekku ci. lii mooy sunu tànk nii la demee un franc cinquante centime. kenn jëlu ko da ngay fen jël lekk ngeen 500 millions leen Macky Sall jox. yéen waa PDS. sen député yi Macky Sall 500 millions la len séddale Farba Ngom ko séddale hôtel des députés 500 millions lañ jox député PDS yépp ñu séddoo ko 25 députés yi. loolu yi ngeen xam ko du 300 de 500 millions la Macky Sall xobbet xobbet jox ko Farba Farba biñu waxon mo yobbu milliards yi conseil constitutionnel Farba bobu mo yobbu 500 millions hôtel des députés séddale ko député wa PDS yi na Sénégal gépp xam du 300 millions de 500 millions lañ leen séddale pour ñu mëna voter loi bi. ngeen xam ko yéen wa PDS dañ waré sa day fen da leen di nax dañoo encaissé xaalis ànd ak Macky Sall ki dil sénégalais yi dee te yéen ñi ci yéen ñi nekk biir PDS ànd ci lii képp ku ko cautionné da nga ko lay ak yàlla ëllëg sa biir bàmmeel yow la xiyam da nga ko lay ak yàlla parce que lii ay fen la ay tappale la bakkan bu ci rot yéen ñi koy dëgëral am ngeen ci responsabilité tey ak ëllëg yéen waa PDS ak waa benn bokk yaakaar. c'est pas vrai c'est des mensonges xam nga bu fekkoon ne sax am na ñoo xam ne ñeneen ca ña nekk ca làng la ñuy wax man intéressé wu ma mais ñi bokkal nag parti ci boppam comprendre wuñ ne dañoo bëggoon suñu candidat bokk moo tax ñu fexe bañ xeex bañ reporter élection yi pour ay nationalité mën a mën a légal ak pour mën a bokk yi di ñu dëkk nag yeneen dëkk day mel. dégg ma ngay dàq tuuma xaalis bi na jotuñu xaalis jotuñu xaalis xaalis taxul woon ñuy ñu doon voté mooy fexe ba ñu dàq élection yi suñu candidat mën a bokk ci diire bi nga xam ne buñ nekkee buñ nee nekkatul français six mois après mën naa nekk candidat Sénégal diire boobu lañ bëgg mu mat moo tax ñu fexe ba ñu dàq élection yi waaye du xaalis buñ ñu jox bu dee xaalis jaaduwul bu fekkante ne pour Karim Wade bokk moo tax ngeen dàq élection yi benn jaaduwu ci bu ki nekk tooñ askan wi la lay yi muy joxe moom Woré Sarr benn jàllu ci moo doomi ram kii ku mas a gis lu mel ni doomi xaram yi metti nag wax dëgg yàlla day metti dañuy woo di nu saaga dañuy woo naan di ngeen dee seeni doom danañ dee di ngeen am ràmm di ngeen cardiaque da ngeen lu leen ñuy wax c'est pas ça c'est pas ça li ñu xeex ak li ñu daj ak li ñu dégg ñun ak li ñu doon xaar ku ko xamoon danga ñu naan jërë ngeen ak jëf jaaraama ak jaraw lakk. da ngay seetlu foog naa objectif ñun bi ñu doon visé atteindre nañ ko. mooy ban. mars au plus tard Karim Wade dana dana euh, la Karim Wade di am possibilité légalment ci yoon pour mën a nekk candidat moo ko wax de. Woré Sarr moo ne mois de mars ñoo ngi ci février mars mois prochain la Karim Wade di doog a mën a nekk sénégalais effectivement 100 pour cent pour mën a nekk candidat. waaw kon ba Karim Wade di dugal dossier am na Sénégalais la loolu kon ay fen la wala saara ko wax kon ba tey jii Karim mënut a nekk candidat même bu fekkante na nationalité bi bàyyi na ko à partir du 16 décembre bi passé il faut que Karim toog ba mois de mars 6 mois yi d'après Woré Sarr pour que mu mën a déposer candidature am ci élection yu ñu am Sénégal soog a mën a lay na Sénégalais képp la fii ba mois de mars Karim mënu ko lu tax mu defoon ko kon lu jiitu loolu. kon kay la mu defoon du jaaduwul ay fen la fen yooyu moo tax ñu seppi ko ngeen ne fen na jàpp nañ ko waaye dañuy xëpp ci cere ji suuf dañuy yàq mbir mi dañuy jóg xeex ba ñu pousse élection yi ba Karim mën a dellu si waat waaye élection du fi am ci ginnaaw Karim ndax ku fi falu da nga faluwaat ñaar yoon muy fukki at yoo xam ne ñun bu amee Karim day dem duñu ko gisati parti bi day tas su ñeel waat moo tax ñu ne nañ xëpp ci cere ji suuf ñu ànd ak moom u suñu lay ku génn ñu tëj ku génn ñu rey askan bu ñu xeex ñetti fan noppalu parce que ay lappata du ñu xeex xeex bu yàgg bu defee ñun ñu am li ñu bëgg mois de mars Karim Wade soog a mën a ñëw nekk légalement candidat comme Karim mois de mars lay soga mëna nek mois de mars moy mois prochain ñewugul kon Karim liñ fi wax yépp lu jitu mois de mars ay fenn la kon kay conseil constitutionnel mo yalla seppi ko wa bu ko conseil constitutionnel seppé ci yoon ngeen na yeen da ngeen di xex lolu ba tax ngeen voté ay loi yu baxul nan da ngeen di pousse ay élection illégalement ba nit ñi di ci dé wa ko ma sa gis lu melni mbokk yeen limay wax man dégg ngeen ko wala déggulen ko dama gis ngeen nemb limay wax man dafa melni sax bop dong lay waxal wala déggulen ma est-ce que yéen a ngi dégg wax yi Woré Sarr ji. loolu lañ doon xeex xanaa nag bu élection yi jotee bat ba bu jot date bi ñu tànn bu jotee waaw Karim Wade bu ñëwee andi nationalité am Karim Wade ñëw indi caution am Karim ñëw indi pare am waaye dama ne xanaa kenn ko ne bu boobaa nag xam ne dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne loolu lañ ñu ñu bako nag parce que man ak ñëpp ak yéen ñëpp. bi ñu njëkkee génn liste bi ne Karim Wade bokk na ci vingt et un yi vingt et un candidat yi ñëpp a kontaan wóor na yàlla ñun dañoo xalaatoon ne rek na préparé nag ñëw ñu daal di ànd wër réew mi lii la ñëpp defoon seen bopp. billahi wallahi taalaay barki kasu rajab kii fi ma tëdd. barki kasu rajab bi ñu waxee ne recalé nañ ko. vingt la Karim Wade génn na ci damaa wopp sama lal bii damaa wopp fi lañ ma fekk di ma jox garab ak di ma jox ay biteel barki sëñ Fallou parce que damaa mbett. sama yaakaar dafa fatas te leer na ma ya ni sama ta se ci lolu ñeen ñepp seen ta se na ci ñepp la seen yaram ge yaram ge tax li mooy objectif bi ñu doon viser yalla may nañu gain de cause ma bëgg ñu dello ci suma xel jam ak pexem yalla ak dogalam jam ak pexem yalla ak dogalam te fa yalla yi defare doomu aadama yegg ba di ko ma tekki ni kuy gëm kuy wolu bul gëm doom adam gëmal yalla parce que affaire bi tourner bi mu am kenn xalaatul ne daam man de billahi wallahi taala bi ne Karim Wade bokkul gi rek àll nañ ko ci vingt et li ma yëg yàlla ma koy yoomal xëy am te leer na ma ne li ma yëg yéen ñëpp yëg ngeen ko ndax ñun ñëpp su ak demoo doon pare dem campagne yi a nationalité lañ ne amu ko waaw ki nga xam ne am na double nationalité bañ jàpp ko nag loolu rek waroon naa tax ñu dàq élection ku bokk ci candidat yi pu pu typiquement sénégalaise ngam nationalité française ak bu Sénégal bañ def la ngay candidat val valider sa candidature xana lo rek waru na xamne ne passé wu lolu ki France ne bokkatul ak yow mi bokku ñu bëkk di mo jaay tukki nga ci wax deug yalla lo rek waru na tax PDS gep encourager nu PDS gep encourager nu parce que yalla nu sutural liñ doon wax buñ ko jëfé won kon ñun ñi bisi dem ba ñu bari dinañ ci gañu te teew dañ ko risquer ñun ñëpp dañ ñoo menacer seen kër nañ ko wër buñ demee taal leen seen kër man assemblée nationale kenn jëkkuma fa ndax bañoon ñu baare ba donc dama ñaan ñëpp ngeen delloo seen xel delloo si leen seen xel li ñu def parti bi lañ ko defal. gis nga de xeex bi ñu war a xeex moo des jóg bi Sénégal yi war a jóg jóguñu de gis nga ñoom ñu ngi dem ñenn dañ leen a menacé dégg nañ lu ne waaye terewu koo jóg jigéen la dugg ci otoom. wul menace parce que xamna na ñun dañuy wax di sànni rek defuñu dara lool tamit jangat bu reuy la tok di deglu live commenter di wax waye waré saal mi su mënee jog tak ndigam ci jigen menace ñu ko menace yépp mu dem xuus dem ci assemblée bi na ràjj def limi def ñu taxaw fi dara fekk ko ci loolu gatché la ci ñun ñun yi nekk fi di wax motax do am sax sawata def ay live da ngay bëgg dag live bi dem tok nekk ci sa bop parce que li bu mënee am ci réew mi ba nit ñi di ci dé suñu ñak fayda la ñun ñi tok fi ci live bi di wax ak deglu ñun sénégalais ñoo ñàkk fayda ba karim wadd ak Macky Sall yëpp ñoo ko Ablaye Wade di complot ñuy dugg ji buuxante dem ci ci assemblée ba di voter loi yu leen neex te dara fekku leen ci ak menace yi ñu menacé yëpp gàccale kenn ku ne war ngaa xool sa bopp lii lii ñoom ñu sañ koo def te dara fekku leen ci heure bi fekk seen famille yëpp dee ñuy gas di sul, kër yi tàkk ñuy yuuxu ñu toog na nemm toog fii di tal life, di wax ku nekk di wax war dañoo xoolaat suñu bopp ñuy dee war nañoo xoolaat suñu bopp li du dëgg du yoon nañ jóg génn na Sénégal gépp jóg. li ñu def maintenir parti bi ci position lañ ko defee li ñu def bañ suñu parti tasaaroo te benn parti mënu. li muy wax yëpp waxi parti politique lay wax da ngay seet li ana sénégalais yi ñan crise institutionnelle assemblée bi dafa xuloo conseil constitutionnel dara ay tapalé la ay fenn la. li xew dëgg dëgg dëgg dëgg affaire parti politique la ak candidat da ngay dégg waré saat suñu parti. suñu parti suñu candidat suñu parti suñu candidat suñu parti suñu candidat Macky Sall suma parti suma candidat suma parti sama problème yi am yëpp problème parti politique la ak candidat la ñu am ñu daal di koy soppi def ko problème mu institution daal di koy soppi def ko problème mu état ci ay fen ndax lan ñun Sénégalais yi nangu wuñoo xeex nangu wuñoo jóg benn làkk de motion mooy tàkk ñëpp daw kenn ay dee ñëpp dugg suuf ron la li moo tax ñu ñu def lu ne moo tax ñu yàpp ñu. lu ñu ci réew moom lañ ko defee li ñu def. dañ koo def pour suñu candidat mën a bokk ci élection yii di ñëw dañ ko def pour suñu candidat balaa élection yii di ñëw six mois yi ne moom mara moom la war a am légalité euh, renonciation à sa nationalité dana ci yegg au mois de mars li ñu def loolu rek lañ ko defee defewuñ ko leneen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq maa ngi jéggalu affaire bi dafa metti te lu nekk lan ñuy wax man sama ajo yi lu ne lekk lañ may wax te loolu lu ñu may wax la ñuy wax képp ku bokk ci ñun waaw nit ne foog naa bu liggéeyee ba pare te nga seet xam ne kii li mu liggéey tegu na ci yoon jaaraama rek ci war a topp maa ngi jéggalu ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak may ñaan ñëpp nañ delloo seen xel te ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy maye may nu nu fekkee te tal ba nu jàppale Karim ba yàlla jox ko réew mi ci dat biñ ko bëgg. da ngay li suñu parti suñu candidat Karim Wade li xew yépp li xew yépp suñu parti suñu candidat Karim wad gis nga fi mu daalalee wax manam ku fi dee yaa ñàkk toppatoo wuñu ku dund ku kuy dee li ñu bëgg nañ ko am moy Karim wad yalla nako yalla yàlla Karim wad Sénégal nga Sénégal ngi Sénégal gi ngeen nek yeen Sénégalais yeen Sénégalais seen Sénégalais ngi ni problème baangi ni légui li lan ngeen ci wax lu ki seen pexe lan ngeen ci jëf lan lañ ci wara taxaw Karim wad Karim nga ca Qatar di lek lu ko neex di tuddu fu ko neex dara suñu doom yi dee ci réew mi te Karim Wade moo leen rey ak ay nitam ay lappata yu topp ci ginnaawam complot gu Macky Sall ñuy dee ñu toog fi naan dimanche laak altine di joxe rendez-vous ay ay mardi balaa sama xol bee jeex ñuy tëb ay bis naan mardi ki ñi naan samedi ak dimanche xeex bu war a nekk chaque jour damaa wax ba sonn mais dinaa bàyyi laay fi bàyyi lépp arrêté je vais arrêter parce que mënumaa xeex ak ñoo xam ne du ñu ay nit xeex tey noppalu ñetti fan xeex benn fan noppalu ñetti fan wax naa ba sonn jëf naa lu ne sës naa mënatuma damay arrêté salaamaaleykum Grand angle qui est donc consacré ce soir à l'incertitude au Sénégal après le report de la